Euh, yeneen euh, question très rapidement euh, yu ñu recevoir ci hashtag bi di midi plus premier rendez-vous de la mi-journée ci télévision Futur Média Oustaz comment un musulman doit préparer le ramadan qu'est-ce qui ne va pas avec le jeûne naka la jullit war a waajalee weeru koor Alaaji Pape parce que ñu ngi jëm nag ci tëj saison moom laa doon wax ma ne question yi moom boo ko rek mooy koor gaa ngi ñëw Pape jullit ni muy préparé koor gi mooy bu koor gi jubsee mhm. da ngay fexe ba laabal sa xol dugg ci ruq man a kan mhm. xool lépp lu nu la wax ni la day yàqu koor mhm. nga moytu ko avant koor avant koor da nga ciy tàggat sa bopp daal tàggat ci sa bopp d'accord bu la fekkee nga ame ay bor nga fay ko yéen ñi amee woon ay bor ci kooru daaw gi fay leen seeni bor balaa ngeen di dugg ci koor gi kon avant euh, euh, euh, naka laa ko tudde safur la auzu billahi mina seytaani rajim naka euh, nit warul amee bor ci dugg ci koor pap jullit bi sax dañu bëgg buy fay ay borom mu fay ko avant koor gi jub si parce que bëgguñu araamul nag mais bëgguñu ah, nga fay say bor ensonné ko ak koor gi dañu bëgg nga nga nga noppalu ci diggante bi ngir waajal farata bu mag bi ni ngay préparer sa koor mooy bu koor gi jubsee laabalal sa xol balaa nga cee dugg parce que koor moom danga koy waajal. ngay préparé wu da ngay mel ni jour buy dugg ci terrain bi di football. na muy waajalee boppam ci sol équipement. booy dugg ci koor gi yow jullit bi noonu ngay waajalee sa bopp. mooy laabalal sa xol benn. déglu tamit jullit bu ni la weer wi feeñ na jullit. suñ nee weer wi feeñ na ñu ne ku ko wax ñu ne Pape Cheikh Diallo ñu ne Pape Cheikh Diallo fu mu ko gisee ñu ne Tamba. du koor mooy asiyaamu. saw saw asawm waaw ok yaa ngi dégg mhm. ñu ne la weer wi feeñ na kan moo ko gis ñu ne Pape seex jàlloo mhm. ñu ne Pape seex Diallo fu mu ko gisee ñu ne Tamba ñu ne Pape Cheikh Diallo lan la ñu ne Pape Cheikh Diallo jullit la yonent bi nee na su boobaa na leen li Pape Cheikh Diallo wax doy ngeen woor mhm. bul dégg mukk ñu ne la jullit nee na weer wi feeñ na nga ni du ma woor parce que jotuma ndigal yàlla moo nu woor loo yàlla moo nu sant koor gi. ñun suñu problème du woor ou pa tëj saison bi mooy suñu problème bi ban période lañ ko war a tëj. ku war a waajal koor di tëj saison. ah parce que weeru koor bokkul ak yeneen woor yi oustaz. ma ne la léegi da ngay waajal ngay tëj. du ñu tëj parce que lu jiitu koor dañuy nekk ci yëf yi àddina mais euh, wor nañu mën a prévoir tëj tëj saison bi. pap tëj saison daa xaram. El Hadj yaa ngi dégg. tëj saison dafa xaraam. dafa xaraam. tëj saison mooy. Mhm. koor gaa ngi ñëw. Mhm. naa dajeeg sama coro. Mhm. def naka sudul noonu parce que biiraawu koor gi duma ko gis. noo def ba xam ni loolooy tëj saison man tëj saison rek laa yow noo xamee ni loolu mooy tëj saison saas xam nga léegi nee nga massage dañ lay wëlbati ma dem ba lay laaj noo def ba xam ko ma baal la boobu. mais noo xamee ni loolu moo tax ñu naan tëj saison parce que man tuddee ma loolu tëj saison tëj saison mooy li nga doon njëkk a expliquer préparer koor euh, gi préparer ko ci xol. fay léegi mooy saison mooy li ma wax man mais yow li nga xam man xaw ma ko ci tëj saison noo def ba xam ni loolu mooy tëj saison <laughs> te de da nga yëngu saison yi. <laughs> <laughs> léegi nga déglu ku la doy. bu la nee weer wi feeñ na nga nga nga um. alaaj est-ce que xam nga ni ci sharia pap nit dana xëy añ ndékki ba suur. añ jot muy añ. dem ba am ñetti tibb. ñu ne ko pourtant weer wi feeñ na dimb bu ko yëgee day arrêté añ bi continuer koor gi. mais da koy fay quand même bu bu koor jàllee mu fay ko mais day arrêté ci saase. pour continuer koor gi man nag lu ma dara a fay duma ko wóor xiifal boobu duma ko man xas naa ba ba ba ci ci ceeb bi. bay way na mbuus xanaa fay rek waaye woor ko après fay encore loolu dafa mais loolu mooy jëf loolu mooy jëfe ndigal gi ci saase d'accord d'accord weer wi feeñ na umal hmm. fekk na la nga ndékki ba pare macha allah yàlla dafa bëgg ñuy doylonte suñuy kàddu ñun jullit ñi bu ñu leen diw wax nañu gëm ko hmm. Hmm. te xam ni yàlla moom moo nu sant koor gi yonent bi daf ne woon suumu li ru'yatihi wa aftiru li yi woor leen ci bu ngeen ko gisee wari leen ci bu ngeen ko gisee alaaji Paam fa muy tàmbalee nag mooy bu ñu salaatoo mhm. ba keroog timis ñuy noddu timis diggante boobu lañ la wax ni la moom ngay woor mhm. doo ci lekk doo ci naan doo ci mhm. sëyeeg sa soxna doo jege sax sa soxna. waaye mais parce que peut-être jamono indi ay yàqu-yàqu diggante jamono yonent bi ak suñuy jamono bi peut-être ay téléphone xewee nit ñi dañ daan wootante naan euh, weer bi feeñ na et tout ça ci la suñu sëriñ yeeg ñoom seen euh, jël seen ay euh, responsabilité def ay commission ak yooyu. waaw commission bi Pape mën na dimbali jullit ñi. Mhm. waaye ñoom tam dañuy fexe ba kenn du leen manipuler. Mhm. mooy waxal nangam far force. Mhm. wala sañuma annoncé seeni weer wi feeñ na parce que bu ma annoncé seeni weer wi feeñ na tariqa sangam danañ ma mere. xam nga Sénégal lu ko yàq. nit ñi ñoo atteetul dëgg. li ñuy wax xooluñu ci seen digganteeg seen borom lislaam amul maslaha diine ji amul sant. santul benn sant diine ji diine yàlla la inna diine inda allahi l islam yàlla moom diine il fallait que ñuy appliquer diine bañ cee dugal maslaha mu amul sant amul koor yàlla moom diine ci donc koor niñ koy waajalee daal mooy xol bu laab xol bu laab mhm. baaloonteeg nit ñi àq mhm. yéene mhm. ci guddi gi bu ñu nee suba la ñuy woor ci nga yéene yàlla fas yéene naa laa wooral weer wi yépp ci guddi gi dugg ci koor gi. macha allah am na heure bu mu tàmbalee am na heure bu mu yem. jeex macha allah liñ ci tere mooy. sa yëg sa soxna. naan tey ko. lekk te tay ko. di wax ak jigéen téléphone. ba am ca plaisir am lu génn ci yow lum tuuti tuuti day yàq sa koor. Mhm. Mhm. Mhm. lido. baaxul. Ah dañu bëgg boo boo wooree nga passé sa koor gi ci tudd yàlla ak julli ci yonent bi. mais lido passe temps la rek. déedéet man damaa dàq lido. surtout bi ñuy téléchargé ci portable yi sama 10 xarit laay woo ñu connecté ndoo. <laughs> mais passe temps la. temps bi ngay toog naan 2 6 ak 4 6. waaw. jëlal sa kurus di def allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. dëgg la wala nga jàng alquran. dëgg la parce que weeru promotion la. Mm-hmm. ñu ne orange tey dafa am promotion boo jëndee mille francs am mille mhm. yàlla nee na weer wi ma leen indil comme promotion mooy koor. Mhm. boo jullee ma doublé. Mhm. nga jàng alquran ma doublé. est ce que xam nga ne yonent bi nee na nawmu saa'imi ibadatun. loolu lu mu wundu. ki woor di nelaw sax day am tiyaaba. macha allah macha allah. comme weeru promotion xarañ bi ngay xarañ ñu ngi la ciy bindal tiyaaba. macha allah. yàlla moo baax nag. loolu koor dong la am pa yàlla baax te xam weer wu noonu nag ñu ne la lépp promotion la war nga mën a profité ba bari ci ay tiyaaba. ku bari ay bàkkaar da fexe ba say tiyaaba bari.